ci biir kër gi su juddoo ñu daal di koy tegal musique sa ngénte ba tëggal ko feccal ko bongool ko tamaal ko ngeen baal ma de mais dafa am yoo xamante ne en fait mënuñu di ci euh, naxante on peut pas faire ça mënuñu naxante ci li nga xamante ne daganul parce que li nga xamante ne daganul yàlla terewuñu ko juste parce que daf ko neex mu tere ñu ko yàlla daf ñu koo tere parce que baaxul parce que dafa am ay jeexital ndax tëgg day woo jinne jinne yi boo leen woowee suñu ñëwee luñ la def yaa leen tooñ ndax yaa leen woo musique noonu lay def doon nga ko def nag mën nga kaa bàyyi léegi soo ko bàyyee nga jéem a def de tele sorte que sa nga mën a raxas sa bopp ci lépp loo xamante ni mooy résidu négatif

Euh, waaw xoolal di dara nekku ci xale la ahankay dara nekk na ci yéen da ngeen foog ne que moom dafay recruter ay mag Iblis du recruter mag de keroog waxoon naa leen lu bari ci moom recrutement CDD CDI bénévolat yooyu yëpp muy def moom dafay commencer ci xale mais c'est pas intéressant de bàyyi koo xamante ni def na li muy def ba kii nii nga ñëw non loolu ay kii la ay desit la no xale ku bees kii kii doogay si ki nga xamantene mom ba muy joggé al-akhira di ñew borom subhanahu wa ta'ala amna lu mu ko wax bala yaayam diko wasin mu ne waw